maaleykum yéen mbokki internet yi ànd ak ñun ci chaîne d'information bi di Dakar People dal leen ak jàmm comme ni ko tàmm di ànd ak yéen saa su ne di amal ay jotaay yu am solo jëmale ko ci actualité bu Sénégal ak li fiy faral di xew tey noonu leen ko fa seen continuer ànd ak ki nga xam ne moo di Khadim Ndiaye kenn dootu leen ko présenté mu nekk nu ràññee bu baax a baax fi Sénégal fa seen ànd ak moom ci benn jotaay waxtaane actualité politique ak làmb aussi bu jëm ci dañuy dem directement attaqué Khadim nuyu nañ la ziar la. waaw maa ngi lay fay di la di nuyu di nuyu Aïcha Euh, di nuyu waa Dakar People yëpp di nuyu seeni i ak seeni i auditrices di wax ni ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur maa ngi sant sëñ Mountakha di ñaanal kilifa yi diine yëpp ci réewum Sénégal yàlla defal leen jàmm di nuyu suñu buntu ci sëñ Touba muy sëñ Modou bi Mbacké xalifa Daaru Rahman yàlla defal ko jàmm di nuyu Pa Abdou Fall sama xarit sama soppe nga xam ne mooy sama patron borom Fiara di Paf production du nuyu njabootam gépp te di ko ñaanal muy taalibe Cheikh bi di ko ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm réew mi tamit ñuy ñaan yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu population Sénégal gi yëpp xam nga rawatina askanu Sénégal diaspora bi ñoom ñëpp ñu nekk diaspora ñoom moo njaay ñu nekk Italie France Amérique tout le monde ñu nekk ci diaspora bi rek maa ngi leen di ñaanal jàmm te di leen ko ñaanal te di ko ñaanal om réew. alors Xadim wàllum Sénégal lañ koy dooree xam ne jamono ji dañ nekk ay fitna yu mettee métti muy ay manifestation yu nga xam ne amoon na fi ay bakkan bu toll ci fukk ak juróom benn jot cee root mbir mu ni mel en tant que Sénégal yi nga dëkk ci dëkk bi dund ko fi également yan kàddu nga mën a yëkkati jëmale ko ci ak dañ ko gisee waa di wax ni di jëli kàddu njaal rek di ko teg ci réewum Sénégal gi yëpp hmm. rawatina ci caaru géej ñun fan yi dañu ñàkk suñu entraîneur Alla Gueye hmm. fan yëpp ci dij bi lañ ne koro bi ma woo sax ci dij bi laa ne di ko ñaanal yàlla xaari ko àjjana rawatina suñu frères yi gaañu ci manifestation bi wax dëgg yàlla tamit ñaawlu nañ ko ba ci kanamu yàlla di jaaloo tamit seeni waajur ndax kenn nit rek dafa metti Aïcha kenn nit génn àdduna rek metti na xoolal fii bu kenn nit génnee àdduna rek ñëpp groupe groupe ba koy rob kon su ñaar génne wala ñett wala ñeent ba naan fukk ak juróom-benn wax dëgg yàlla ëpp na di ñaan yàlla fi yam yàlla fi yam ndax réew mi réewum jàmm la réewum Sénégal réewum jàmm la xam nga nekk ci kanam nga xam ne ñoom la fi yàlla te ñu nekk ci kanam dañoo war a gestu ci ginnaaw oyofal lépp yombal lépp ndax maa ngi fàttaliku jamonoy ab Abdou Diouf daraan wax bu élection masaana jot jàkka jàng yi ku mën noddal ndax xam nga loolu laa gis ci àdduna te loolu moo war a am xam nga nit amul lu dul yelleefam ak àqam soo ko ko xañee rek kii nga ko utal am xar nga yeew ko bu boo ko yeewee lu ma ñaari jour ñett ñetti jour boo ko génnee gis nga ko day bajantu ndax fi nga ko yeewoon day génne wu. sàkkantuma liberté dafa am solo ci nit. xam nga li ñuy wax picc moom boppam garab gu ko neex lay teg liberté moo tax mais xam nga te réew mi nag dépassé nañ léegi ay réew ay ay jàmm. dépassé nañ ko loolu suñu temps colonial li la woon xam nga bu mu njaam yi jeex na li ci am solo rek mooy ñu delloo si xel yi te waxtaan te xam ni waxtaan dara mënta am te amul juboo dara mënta am te amul waxtaan xam nga loolu nag mooy doxal réew. ku ko bëgg loolu mooy doxal réew ku ko bañ it loolu mooy doxal réew ndax jàmm ci la lépp xaj. alors li ñëpp doon daw mujjee naa am muy ay jàmmaarloo ba ay bakkan rot yi laataa loolu lépp de am am na lu fi xewoon muy problème mu mbër yi dañ leen a recevoir dañoo recevoir xaalis wante mel na ne nag ginnaaw bu manifestation yi amee ñu bari jàppoon bu fekkee dañoo jël xaalis duñ daal di ñëw dañuy ñëw bokk ci mbir mi kenn gisu leen benn yoon ñu bokk ñu xeex wala lu ni mel est-ce que loolu du dàq que xam nga àdduna xam xam ba xam jeex xam sa bopp ci dàq ndax nit da ngay doylu doylu dafa am solo ñoom ku fi toog pendant presque nga toog fi pendant depuis deux mille 2012 ba léegi. 12 ans nga toog ko fi. ba mu des ay 8 mois yow nga génn naan kooku liggéey na da nga koy doo ko xam. am na lu tax xam nga. fokk faut que ñu bàyyi ñun ñun mbër xam nga luñ fi ñu doon xaare tey yii am coow yi am ñu génn ndax ay porteurs de voix ñu génn calmer jeunesse bi waxtaan ak jeunesse bi tegaat leen ci raay. mais du ñun ñooy génn di am fu ñuy far wala fii am nga droit sax am fa far mais nga nëbb ko ci sa biir xol mais di manifester wu ci réew mu metti mi te yéen mbër yooyu ngay gis noonu sax ku ci nekk ñii ñu ngeeg ñeenti avance ñii ñu yor ñetti avance ñii yor ñaari avance te avance yi du ay du ay ay ay ay vingt ay trois millions ki deux millions de ay quarante cinq quatre millions jëm kaw kon dañoo doyluwul foqale xam nga foqale ni ma leen jéppee maag yàlla rek ko man bëggatuma sax bëggatu su ma seen sax dañ may bu ñu woowatee ancien leader dañ may woowee ancien rij bij rij bij Khadim Ndiaye rij rij bëggatuma sax nekk mbër xam nga ndax ñun suñu suñu mbëri ci suuf problème bi ñu am am di dund ay jafe-jafe yu metti xam nga ñun gëstu leen malgré que man mii li ma doon wax impacté wu na ci man ndax amoon naa ay contrat yoo xam ne sama yor société gardiennage muy Touba sécurité mm. dagg nañ sama ñaari contrat mais lépp jël naa ko teg ko ci loxo yàlla ak Seydina Mohamed mm. ndax dëgg laay wax ba koroog may dee bu ñu daggoon beneen bi ci des it mm. damay wax mais li may metti lu rek mooy ña fa doon liggéeyee doon ay ndaw ñi dëkk caaru géej ñi dëkk feneen doon liggéey ak man yaakaar ci man xam nga tey loolu xëy dagg maa ngi leen di masaw bu baax di leen wax ni gën leen a muñ ànd ak seen ngor yàlla gëmul nelawul fa yàllay defaree doomu aadama mënu fa egg bay yàq li ñu war a wax ci réew mi dañ koy wax muy jàmm te jàmm nag ki ko yor mooy ki yor benn baat bi muy ki nga xamante ni ñëpp a ko ànd wooteel ko muy président Macky Sall kon moo war a génn waxtaan ak frère am Ousmane ndax affaire bi léegi dootul affaire population dootul nangam affaire diggante APR la ak ak ak ak ak ak Pastef nañu waxante dëgg ndax coow li si ñoom ñaar foofu la jógee kon li ci am solo rek comme sëñ Muntaxa dugal na ci loxoom sëñ Maye Niass suñu xalifa général yi suñu sang yu baax yi nga xam ne ñun ñoom lañ am lu ñoom lañ yaakaar yaakaar naa ni épaisement gis nga fan yi li xew ci réew mi jàmm ci la lépp xaj fan yi xale yi ndaw yi man franchement li boo demoon ci hôpitaux yi da ngay waaru ci yàlla da ñun day fekkoon jour bi bi affaire bi am ñu ngi am dëj mais bi ñuy ñëw sax xamuñu fu ñuy jaar te li ma gën a metti maire yi dañ ma doon oone ma pour man ma wax man la man fan laay waxee dagg nañu réseau yi internet amul maire fooy wax xanaa nag fooy waxee fooy jaar sax pour dem pour wax te li liñ doon ñoom dañu yaakaar ne xaadim comme ni ma nekkee porte de voix ci caaro yi su ma waxee ñëpp déggal ma damaa war a mais amu foo ma waxee te man dama nekk ci naqar am dëj suñu écrit koo xamante ni su ma grand la lu nekk ci man lu ci bari moo ko def ci man muy àll gay feebar feebar bu yàgg gaañu maa ngi koy jaale ñëpp di ci nuyu ja Jeylaani Puy boobu Ablaye Puy di wax ne gis nga gis nga jàmm barki Serigne Touba Mbacke lu dul jàmm jàmm ko gën balaa nga koo xam tëdd sa guddi taal sa ventilateur jàkkaarloog sa télé xëcc sa frigo ut lu sedd nga naan ko di nga xam ni jàmm rek am solo mais yooyu yëpp nag mën ngaa nekk sa kilim de taal sa clim taal sa écran double du écran boo xamante ni ay 4 millions lay jar 5 millions nga toog di seetaan nga def benn bés ñëw ba loolu yëpp dootu la saf ndax bu la dee dënmalee il faut que ñu bàyyi ci xel bis bu la dee dënmalee àdduna dara dootu la ci saf te doole joo mënti am ak joo am fi nga koy bàyyi. bu doon milliard fi nga koy bàyyi du la topp. bu doon kër gu rafet du la bàyyi fii du du du la topp. bu doon soxna su rafet du la topp. te ñoo ñëpp sa soxna si nga takkoon si biir kër sax bu léegi nga ci sa këru dégg gudd la gunge. nga xam ne àdduna nañ bàyyante jaay doole jaay doole baaxul cim réew de. dama bëgg ñuy delloo si xel yi te xam ne ana Senghor. ana Mamadou Dia. ana Djibo Ka. ah ana Ousmane Tanor Dieng lu mu nekkoon secrétaire d'État an mu tey mi ngi ci biir suuf leen yóbbu ñun ñu fi ba kon ñoom ñi nga xamante ni ñi nga xamante ci jamonoy Senghor lañu woon ba léegi topp Macky Sall naa ko del dóor del gëmm del nangam te lu ñëw ñu ñëdd ñooñu il faut ñu bàyyi leen bàyyi jeunesse bi ñu ñëw defar réew mi ndax réew mi ñu ngi naan pétrole nga fi gaz feeñ na fi lépp feeñ na fi kon bu ñu fexe suñu réew moomu ñu yàq ko ndax ñun ñoo ko moom mag yi Ousmane Sonko du sonnoon Ousmane Sonko Macky du sonnoon ay frère ngeen dama bëgg yéen ñaar ngeen jologe ngeen waxtaan ñu xool luy développé réew ñu nekk ci mais pas ay xéeroo suñu rakk yi di dee fii à gauche à droite man naqar bi ma am sax gis nga temps yëpp naqar bi ma am maag yàlla rek ko xam ndax man damay wax ni dama am benn philosophie boo xamante ni damay wax ni mbër gi ma nekk sax neexuma te boo ma laajee lu tax ma wax la ko mbër gi ma ne neexuma tey su ma génnoon àdduna ñu wane sama combat bi may dóori balle bay ba muy nàcc ndax di nga am yërmande ci man mi ñuy ropp tey déglu image bi ma la wax rek tey ma gënoon àdduna ñu teg ñu ñuy fàttaliku Xaadim Njaay ñu teg bi may dóore bàll baabo yi ba kanam gi di toj ndax yow di di taxaw ne oh kii ka baaxoon déedéet ndax deret ja ma doon tuur a tax kon mbër gi ma nekkoon maa ngi koy rëccu xam nga kon il faut ñu delloo si xel yi tey yéenante jàmm te déglu suñu mag yu baax yi ndax réew mi ñoo ko moom xam nga jàkka jaa ku mën noddal ku bëgg a dem élection demal tey Ousmane Sonko yàlla defoon na ñu koy wax Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr ñaari at yàlla nit ñi dee ba tey jii ñu àtte ko setal ko kon wax dëgg yàlla te mu yor famille yor ñaari jéegam xam nga ni ñu waxante dëgg nga yor sa xam nga tey jigéen rek tey bu bu boo xam ne dafa yiw mel ni Aïcha mi mu romb nga ne ko Aïcha danga boole ko ci jigéen ñi taxawal day reyanteeg yow tey góorgóorlu woon caga nga mu mer sàkkantuma nga jiñ ko loo xamante àdduna bi yëpp a ci doon teg seen bët mu am lu muy xëccu nga dem benn seetal ko kon dañu waroon jël lépp teg ko ci suuf buñ bëggoon jàmm dañuy jël lépp teg ko ci suuf mu féete boor ñu toog waxtaane ko Ablaye Wade moo fi indi journée de continuité te bi mu koy indi mi ngi ci mi ngi ci gouvernement Abdou Diouf Ablaye Wade mi mi ngi mi ngi ci journée Abdou Diouf te boobu da daan Abdou Diouf da ka daan ba pare am ak moom problème génnaat ko dugal ko ci gouvernement bi tey dem na ba jiite réew kon il faut ñu bàyyi xel Macky ñu xam ni lii nguur la rek day jeex da ngay dem keneen ñëw mm-hmm. mais nga génn une grande porte mu rafet mm-hmm. nga am way mm-hmm. comme Nelson Mandela xoolal Nelson Mandela ba tey mu ngi ci biir suuf mais ba tey foo ko tuddee da koy bëgg sax ñaanal yow wala sax yow nga bëgg a jël sa yiw sax jox ko ndax ni mu doxalee euh, euh, Zimbabwe foofu nga xam ni foofu it ni moo fa amoon mu jël réew mi benn mandat la toog joxe réew mi defaraat ko alors Khadim euh, président Macky Sall ñëpp jàmm lañ ko bëggal mu génn ci bunt bu rafet comme ni nga ko waxee porte bu rëy mais gis nañ kat ba mu wootee palais ci dialogue national am na ñoo xam ne suñu ay papa lañ suñu ay kilifa lañ toog naan ko Macky gëmmal dóor gëmmal dóor loolu ko ko dégg xam ne fitna lay wootee est-ce que kilifa war naa waxee noonu ci dëkk bi ñu nekk tey mais est-ce que Aïcha est-ce que xam ngeen ni benn affaire su ma doon séntu yow loo mhm. wax ci yow mukk rek loolu la xam nga mhm. boobu dëkk euh, euh, ne ko su la neexoon léegi décret génn rek ma nekk ministre d'État loolu dafa tax ñuy dialogue dialogue bu ñu ko dee xam nga il faut que ñooñu il faut ñu xam intellectuel lu dialogue dialogue hmm. bu ko déggee mooy waxtaan hmm. ku nekk jële fa xam-xam hmm. ba bu ëllëgee ñu becc ko ci askan wi nga xamante ni ñoom ñoo leen fal loolu la ñuy wax dialogue boo ko defee ku nekk tey jii bu ñu wax dialogue boobu buñ ko buñ ko tegoon ci niñ ko war a tegee kon yaakaar ne pëccaxoo yi ak réeróo yi du am xam nga li ma bëgg rek mooy ñu delloo si xel yi. nit day am esprit de dépassement. grandeur. Hmm. mooy lan nga jekku nit ki ba pare xam ni kii jekku naa ko ma seet sama digganteeg yàlla. Hmm. loolu mooy première diplomatie xam nga première diplomatie du diplôme yi nga am de. Hmm. mooy nga xam sa bopp. xam valeur yi nga war a incarner ci sam réew. ba bu ëllëgee boo fi jógee say doom mën a daagu ci réew mi. loolu bëgg naa ko ci président yi ñu ciy bàyyi xel. tey Macky Sall tey bu toogoon tey ne kaay leen mu organiser leen élection yi bii di boo liggéey sax damay ragal sax bu génnee Sénégal sax ñu jël ko fa def ko Nations Unies fal ko leneen lu gën a kawee président gi mu nekkoon. Mm. Abdou Diouf def nañ ko ko. Mm. kon dama bëgg rek ñu delloo si xel mi te xam ni réew mi kenn mënu ko defar ndaw yi ñuy rey président ci la nekkoon mm. député ci la nekkoon. enseignant bi ci la nekkoon ndax ay ay tout tànk lañ mais loolu loolu dafa mel ni poids ñaar lañ ma jëm ci sama xol ndax man. ku ma xam da ngay yaakaar ne ku agressif mais ku am yërmande laa ndax amul amul ëpp Sénégal tout tànk yaa ngi nii toog gis nga leen man amul ëpp Sénégal Sénégal laa am moom laay xeexal askan wi laay xeexal mu ñooy samay lu ma mel rek askan wi ma ko teg kon tey lii leen dal metti na ma trop di wax ne nit ñi ci kaw il faut que ñuy nangoo def transparence dajale kuréel gépp ñu waxtaan te ñu seppi naa féq yi ñu teg leen fële am na ñoo xamante ne intérêt Sénégal intéressé wu leen ku naan président del gëmmadu dóor loolu loolu bëggoo lu baax boo nee nit ki gëmmal dóor ma xoole dóor ki gëmmal dóor xam nga du dóor fu baax nañu waxante dëgg tey su ma doon dóor sama doom yor yor séntu bu am buukul gëmm di dóor mais mën naa ko dóor foo xamante ne maa koy fajiwaat nañu waxante dëgg yooyu du xalaat yi ñu war a xalaat mooy wax président mu delloo si xelam ndax moom la fi yàlla teg mu delloo si xelam ëllëg day dem keneen ñëw xam nga mais jël kër nit nga bracaré ko mu yorum njaboot kenn génnul kenn duggul mais franchement nañu waxante dëgg da ngay toog ba ci yàgg sax tëdd sellal yow sa ventilateur di la ëpp sax nga fay ko yow te xam ne yow yaa ngi ci jàmm sa beneen naw la nekkul ci jàmm Macky Sall nga nekk sa palais mm-hmm. xam nga taal say kilim taal sa lépp mm-hmm. nga bàyyi sa nawle ba nga xam ne sa nawle la bu dul dara yéen bokk benn benn benn réew mi ngeen juddoo mm-hmm. benn carte bi ngeen yor war nga mën a dawal yërmande àdduna amul solo lu dul jeex ci àdduna amul ana sama papa mi meññoon kër gi sama papa ana sama yaay sama néeg yaay ngi woon nii sama néeg papa ngi nii sama néeg tante yi ñoom ñëpp génn nañu àdduna mais àdduna li ci am solo mooy ñu yërëmante def te yàlla tax te ba xam ne lu mu yàgg-yàgg dañuy génn àdduna ay tout tànk di dee barki dee mboo njaay ay tout tànk ñun ñu nekk ci dëj ñu xam nga suñu ñaari xale ngi fii ñu jam seen papa amul doole mais man maa mën a wax caaro yi amul kenn ku fi mën a wax mais Macky Sall il faut nga yërëm Sénégal yi Aïcha il faut que kii mu ñu épaiser lii xale bi yor xeer dem fekk jëmbi bi toog mu xaañ ko frère am la xaañ jëmbi bi sa xale xale bu ndaw ci askan bi dóor ko bal frère am la ko jam ñoom ñëpp ñoo bokk benn deret muy sang muy Sénégal lépp sëngeem réew mi sëngeem nii ñaaw na alors euh, Gris président des lutteurs en activité def na benn communiqué di saako ak dal ñu ànd ak jaam ak salaam ñu gis ka ni cette fois ci àdduna alors posture bi mu nekk noonu est-ce que bu ko àddu woon ca ba coow li jógee ci mbirum mbëri également ñu dañoo encaissé xaalisu état dañoo tuur lëndëm ñeneen ñi du doon woon gën a rafet doon woon gën a boole askanu làmb. mais gis nga kooku nga ma tuddal sax réccu naa sax li ma koy tuddale fii. ah Gris Bordeaux. waaw lu tax loolu. réccu li ma koy tuddale fii gis nga nit. la yàlla tegee benn auteur. Mhm. da nga war a xool ñi nga jiite. Mm-hmm. bul xool ñi ci kaw rek. Mm-hmm. danga war a xam ni jiite nga ñu mag jiite nga ñu diggu dóom mm-hmm. digg nga ñu suufee nga jël ñëpp yilif xool intere làmb ak liy développé làmb mais doo seet ay dix dix dix DP rek dañuy mbër. bi coow lu amee doo tax génnuñu. génnuñu. ah duñ génn après duñ ko génn duñ génn. te fi ne nii bu ci kanamee di nga leen génn ñu génn ak seen ngandi loos ak seen làmb ñu rek ku nekk dara tatati ah billaahi duñ génn hmm. xam nga mais dañu waroon def xale yu gis nga billaahi fi may waxee yow nii hmm. am na mbër yoo xamante ni ñi ñi ngi am ay nerf hmm. feebar am na mbër yoo xamante ni man ñi ngi may demandé xaadim xalaat nañ saison bi duñ ci bëre fan la ñuy jëlee xaru tabaski te ñoom duñ leen gestu de te ñoom ku ci nekk ay xari quatre cent mille cinq cent mille ngay rey nekk seen donkaas di yor seeni oto ah yéen da ngeen di nitu dara man dama leen a gëm du ngeen barki sëñ Tuubaa Mbàkke yéen yàq làmb ji gis nga loolu dafa may dafa may metti quoi mm-hmm. li ma bëgg rek mooy xale yu ndaw yi ci suuf mm-hmm. man maa ngi seen ginnaaw te dinaa leen xeexal mm-hmm. te lépp lu ma xamante ni mën naa ko def gis ay nit pour ñu dooleel leen ma dooleel leen ci ñi ma xam dinaa ko def ndax loolu mooy sama devoir ndax damaa jàpp ni peut-être xaw ma suba xaw ma ginnaaw suba xam nga ñi ngi wax 2024 ñun ñi ñu koy xëccoo ñëpp kan moo ci mën a wax ni Hmm? kon nga xam ne yàlla rek nga xam hmm. ñun ñii ñëpp kenn wóoruñu ndax suba dinañ fanaan wala déet hmm. dañuy am njortu bu rafet rek kon looloo tax nag ñu war a delloo si xel ba yow man li ma yéene sama bopp ma yéene la ko ba bu yéene li ma la yéene li ma yéene sama bopp bu ma ko rek Sénégal bu ñu ko defoon rek bëgg rek ni yow ay golo ay golo yu njowaanu xam nga comme ni ko Youssou waxee teg te te nga bàyyi ñi suuf ñu ñu ñi ci suuf ñuy maq suuf loolu am na ñoo xam duñ ko nangu dañu waxante dëgg réewum nag réewum Sénégal la réewum la man damay ñaan jàmm am alors problème mu yi aussi lëmbee na dëkk bi bu baax a baax ay nit ñu nga xam ne ay civil lañ solo ñu benn tenue am sax ba ñu bokk boole ay mbër am na mbër boo xam ne ñu ko ju tudd ñun dafa rey benn xale est-ce que loolu tamit rafet na ci ci cadre làmb lu lu ma ñaawloo ngi noonu yow nervi noo ko jàng nervi mooy presque mën naa ni dof rek wala doomu xaraam laa ko mën a jàpp <laughs> nañu waxante ndax yor sa doole demoo dugg ci làmb ji pour ami million nga ne da ngay dem ñu lay jox ay journée mille francs dix mille ngay dóor ay nit di leen gaañ loolu kenn ku ko ku ko considéré doo nit nañu waxante dëgg loolu dafay war a jeex fii ci Sénégal réew ay nervi dafay war a jeex fii ci Sénégal Sénégal rek laa am defe naa amul feneen gisuma ko beneen réew xam nga te baat bi sax moo jëkk a ñaaw nervi xam nga loolu baat bi moo njëkk a ñaaw di jàpp ay nit ay xale di leen dóor di pard di gaañ di di ay élèves ah. xam nga te yooyu def yooyu yooyu mooy yàq réew mi mm-hmm. nañ wax dëgg rek genre règlement de yooyu suñ ci teelu lu jóg ëllëg la muy jur du doon jàmm nañ waxante dëgg rek du doon jàmm de biir leexe di doon jàmm mm-hmm. xam nga te képp ku ñu ne nerf bi nga yow ngay yeewoo ci kër sax yow war ngaa xam ne yow kër ga nga yeewoo bokko fa dañ la da nga faa joox xam nga am sa doole amoo looy defi demoo liggéey demoo defi dara lu dul ñàpp say sa sa so askan te ñi ngay dóor say frère lañ loolu baat boobu dama koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla su ci mbër bokkee dama koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla ndax mbër fañ fañ koy fañ koy séentoo du foofu ndax ñoom ñoo fi nekk naan mbër noobul la kon doo mbër waruñu ko mën a dugal ci ñàkk fay ba mu ciy dugg xam nga man toujours mbër yi ma yor fi mbër yu ndaw yi dama laaj leen caar yi ñëpp ba ci fépp fu ma nekk dama leen di canaliser ci lu baax lii ngeen war def boo bëggee lii lii nga war a def boo bëggee lii lii nga war a def mais yooyu yëpp pour canaliser la rek pour su ma neexoon bàyyi bàyyi affaire làmb dem bàyyi naa bëre dem nekk ci yeneen mais yi may xeex ci làmb yàgg naa ko xeex tey mi ngi doog réperté wu nag ci seenu foqale ak ci seenu bëgge xam nga li coor sekk naa ni jën yu mag yi jeex na yëpp ne ñoom nag jën yu mag dañoo bëgg a ñëw ñoom ñu bëgg koo lekk bëgg a bàyyi ñu ci sopp billaahi damay dugal seen loxo fii yéen yëpp ngeen gàqu ko dëgg la Khadim alors Khadim débat bi neex na lool ñu jeexale ko ak benn question Khadim ana Lirou Diane yaa ngi koy dégg. waaw moom bëgg naa ma nga États-Unis mais dafa feebar nag. waaw dafa amoon rendez-vous. moo njaay directeur. Uh-huh. xam nga comme li ko daloon li ma ko yooxoon moo ko dal. Uh-huh. Uh, maa ngi koy ñaanal liiru. Uh-huh. dégg naa sax dafa war a def opération. yàgg mais dégg naa sax ab tubaab. bu gaañu. la wut. dañ koy jéem a wutal. pour ñu ñu dindil ko li ci suuf benn bi ci suuf pour montel ko ko moom. <laughs> xam nga benn tubaab bu bu faatu la ndax kon gis naa ko ci hôpital <laughs> ah, waaw nga ni nga ni nga ni liir waaw benn tubaab bu faatu la ñuy ñuy xool pour ñu dindil ko benn bi jox monteel ko ko par yàlla gisaguñ ko nag du caaxaan moom la koro gis naa ko ci hôpital mu sol benn blouse di ci morgue yi di xool am néew xam nga di ñaan di ñaan mooy yàlla ko yàlla may wér ndax sama doomu ndey la te ba pare day liggéey GP boole ci GP la quoi xam nga moom ku ne xam na ni GP lay da koy nëbb nag ñëw fi jël ay géej ki yéet ak yëpp xam nga dégg naa nag mu ngi foofu lu ne mu ngi koy yekk nag loo xamul ci yàlla. loo xamul rek mu ma koy wax. mais man dama lay ñaan doomu ndey rek nga wér ak jàmm. di wax ni réew mi tamit yàlla na fi yàlla def jàmm. ndax àdduna soo gisee maanaam diwo ak riiru jaan dañ doon dindi stress. ndax nit ñi fi mu ne stressé wu nañ fi mu ne xoola ñi ñëpp a ngi dox. mais nekkuñu. xam nga nekkuñu fi mu ne nii quoi. fi mu ne nii ci ci démb ba tey depuis déj ba ba léegi. waxuma waxuma ay chute mais li ma oo ci ay ay chute pour bëgg wax ak man. su ma ko compté mat na 30 barki sëñ Tuubaa Mbàkke billaahi xam nga mais nag kon loolu yàlla defal ma ko ma xam ne porte de voix la dama ñaan yàlla rek li may wax yàlla askan wi di ko dégg te mu doon lu lay jariñ su fekkoon ni tey damay ñaan Sénégal ni jàmm rek moo fi am pour sama ruug yi dem barki sëñ Tuubaa jaral na ma ko ndax euh, dañ tuddee ko tedd muy xaadimu rasul kon dëgg rek laa war a dox. Mhm. merci. Ah, neexoon na trop euh, di leen jox dégg daje yéen mbokk internet yi doon ànd ak ñun à travers Dakar People ñu doon ànd ak Khadim Ndiaye nekk ku xaar xa bu baax a baax fi Sénégal mu doon yëkkati kàddoom jëmale ko ci actualité bu Sénégal di leen jox dégg daje jàmm ak jàmm ba ne incha allah jërë ngeen jëf.